ci kabine Cheikh Omar Bara Sarr bi ñu fi ñëwee nag ñu ngi fi fekk sama benn yaay bu ñëwoon di faju si kon sama yaay ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay ñoo ngi lay tey dañu ñëwoon fekk la fii ci cabine bi ñu doon laaj tey lan moo fi say tànk. voilà man di fi sama benn doom bu asma woon asma bi sonal ko lool amub diir ak moom mat fukki at ak juróom daanaka soriwu ko sax léegi ma toog si rajo bi yor-yor dégg ñu muy expliqué ne dañuy faj asma léegi ma andi fi sama benn doom mu def fi ñetti traitement waaye yàlla def jàmm mu wër ndax da daan bañ a fubbal kuy doxee bu baax di xiixat bu toogee ci saxaat di fat léegi si yooyu yëpp dañ mu ngi sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla mu ngi sant bu baax am nag wër sant daal mu ngi sant daal wax dëgg yàlla te ci rajo bi rek laa ko déglu woon ci laa ko déggee woon waaye mu ngi sant bu baax yow avant nga koy indi fii dafa am fan nga jaaroon deman nga yóbboon nga ko hôpital wala. Ah, yóbbu naa ko hôpital kay daawuñ jóg hôpital biñ koy njëkkee yóbbu hôpitalu Njaareem dañu dafa am ab diir daaneetu ko léegi bi mu ñëwee nag ñandi ko ñu ñëw mu amub diir léegi commencé di ko daane daane bu xaw a sëree ba mu yàgg mu def daane bu jegee du am semaine te ko ba am benn suur sax mu daane ko muy fatt léegi ñu yóbbu ko hôpitalu Ndaamaatu ñu këppal ko masque bi buñ ko këppalee masque bi mu fatt bi arrêté ñu defal ko ay pompe léegi pompe bi saa jeexee rek fatt bi ñëwaat léegi mu toogaat ab diir fatt bi ñëwaat ñu yóbbuwaat ko ñu dëppal ko ko dëppal nañ ko ñaari yoon masque bi léegi biñ ko ko dëppalee nag ci jamono yooyu mu sonal ko léegi ordinance bi du jeex saa ordinance bi jeexee ñu jëndaat ko doom yeeg pompe bi léegi nag ci boobu laa dégg ci rajo bi ñuy expliqué ma daal ne naa ko seeti ba xam moo ko it maa ngi sant yàlla wax dëgg yàlla na xale bi féex na bu baax a baax a baax mu ngi sant yàlla activité yi mën doon na def yëpp mu ngi koy def léegi day fubbali day fooyi te bu nekkee saxat du ko yëg te appaat bi mu daan def ak gaasoon bi daal yàlla def na wër na moom mu ngi sant yàlla bu baax. kon daal bi nga ñëwee ci cabine bi ci ngay soog a xam ci lay soog am tan. waa ci lay too tan bi ma ci gis kay gisuma ko woon ci kër docteur moom wax dëgg yàlla. dëgg rek a neex yàlla gisuma ko woon ci kër docteur ay ma ñëwee fi am na tan bu baax mu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. sa faj bi dafa mel ni diir bin ko doon faj yàggut traitement bi. traitement bi yàggut yàggut ñetti traitement rek la jël daal di mel ni dañ koo sekki ko mu dëkk ñetti traitement donc te daanaka am na lu mut fukki at ak nangam ci hôpital yi te mën da wër ay ñetti traitement donc la jël. yalla def mu wër mom sante yalla bu baax mu ngi sante yalla bu baax a baax a baax. traitement yi matul ñaari wër dedet mu war dama ñaari wër matul ñaari wër dedet matul ñaari wër de ma bi matul ñaari wër ci koor gi dong lañ ko commencé ci chat koor gi lañ ko commencé te danaka bi ñuy waree sant mu ngi defi activité am ko daan defee di sante bu baax. kon léegi yow ñi nga xam ne asma da leen a dal sa xamuñu kabinu Cheikh Omar Bara Sarr kon dal nga leen dal. te xanaa ku ci yor doom yor asma rek fii mu neexee suñ borom yàlla na ko saafara ci kàttanam ak mën-mënam. waa kay yàgg na de. waaw. waaw. gis tànn. dama daan jox ay pompe. ma daan pompe dama si pompe dama tëddee bu guddi damay daane. waaw. léegi daaneetuma de. duma fubale duma ñëwee duma daane duma def dara waaw. boo tëddee. duma defati dara kay waaw ñetti ñetti garab li traitement la ñuy jox waaw waaw sant yàlla baax di sant yàlla baax waaw ñu ñëw an seen doom yi faju waaw Oh, it's got a dark gas there. tay nak kon bi ñëwé e fi ni ci cabine Cheikh Bara Sarr ci garage dar ñu fi fekk suñu benn ya waxtaan na nak mom expliquer nañu li nga ni moy asthma asma bimu ñu waxé bi mi ñëw fi hôpital faju na ba sonn ci ginnaw bi mu fi ñetti traitement rek lañ ko jox xalé bi commencé na wër kon nak ñi ngi ñëw ñu jaakarlo ki nga xamné moy Mara Marah ñu bëggoon a am ak yow ay laaj yoo xamante ne ni nan nga def ba xale bi nga faj asma bi ak yan feebar nga xam ne moom ngay faj أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله بارك برام توبا Bawol TV ñu ngi leen xaar bu baax di am mbégte lool ci lii ngeen ndax jamono ni laaj lu ni dafa fekk ne mbégte rek la ñuy am ci leeral lu jëm ci wàllu googu ndax dafa fekk ne am na feebar yoo xam ne bari na tey médecin yoo xam ne boo fa demee dañ lay wax ne la du wér asma ci la bokk hémorroïde ndoxu siti euh, tuberculose sax am na ñuy wax ne du wér te bari na feebar yu docteur di wax ne du wér te asma mii ci la bokk moom yàlla dafa dogal bi muy doog a ñëw euh, le 21 bee jàll la ñëwoon bi mu dikkee it

pompe yi mënul ci moom dara dem na ba ci yàgg bu ko daanee foo ñu yóbbu ko hôpital këppal ko seen maski pour mu mën a nooyi nee na nag ci jamono jooju ñu ci dund ay ordonnance yu métti yoo xamante ni ñu ko ci daan def waaye li gënoon a tax loolu metti woon ci moom moom soxna si amoon na yéene loolu ngir faj ko ci wàllu garabu olof mais dafa mel ni waajuru xale bi taxutoon mu gëm à pour cent garabu olof parce que am ñoo xam ne ba tey gëmuñu ne garabu olof mën na faj léegi na loolu ñaar dina ko waral dem ci sëriñ si lu bari te la nga fay wut doo ko am dem ba dootoo leen gëm wala it nekk koo xam ne xëy na tubaab bu ñuul nga ba doo gëm mbiru olof yi la ñaar yooyu dina waral ñu bari duñ gëm wàllu faj mi euh, bi mu dikkee it liñ ko njëkk wax mooy est-ce que bu yàlla dogalee ñu faj xale bi ba mu wér di ñu may euh, interview boo xamante ni da nga leeral nit ñi bi fi xale bi di ñëw ndax loolu li ma ci jublu mooy euh, bari na ñoo xamante ni buñ gisee lu mel nii mën nañoo bañ a comprendre en 100 pour cent lan moo tax. japp ne luñ ko luñ ko forcé la wala japp ne euh, dafa dafa dafa dafa don parce que dañay dégg sax yeen say ñu ne sëriñ ci dañuy fay nit ñi den wax lo lool man dégg na nit wax ko kon damay faral di wax ne doomu adama yi ñoo seen bop ta yakkan na soxna si kilifa la mak la yakkan na nit mënu ko wax lool lu nekkul dëgg ci moom dama yor ak njabotam waye lool taxu ñoo jog ñun liñu ñu jog dëgg-dëgg moy liñ japp ne du wër nañ xamne day wër asma day wër dañ koy faj ba mu wër moko waxal bopam trois traitements lañ ko jox trois traitements yi xale bi mën nañ ne wér na parce que amatul ci kàttanu yàlla bu leen neexee ngeen toog pendant six mois ngeen defaat retour ngeen seetiwaat xale bi ngeen xool ko nii ngeen ko feke ni ngeen koy primi premier traitement bi bi mo ko njëkkee jox bi mi ñëwaat di jël si deuxième traitement bi fi ñu cik ci di yi dox ñëw fii bi mu dikkee fi day tok di xiixit ba man wax yaayam a nga ne kon loolu liñ ci bëgg a jàngale mooy sëriñ si man naa faj nangam man na faj nangam gi dafa bari mais Cheikh Bara dafa jël intention képp ku incha allah rabbi bu la traité ba résultat yi am léegi résultat rek lay wane mën naa faj nangam gi bari na rajo yeeg télé yi fépp mën naa faj nangam mais léegi ñun soxlaatuñ ci mën naa faj nangam faj naa ba pare mi ngi ni wér na loolu lañ soxla. te loolu lañ fas yéene léegi di wane képp ku fi ñëw tamit na nga xam ne euh, vidéo bi du force mais nit ki mooy baax baaxuk boppam ne lii kat gis naa fi njariñ te am na ñoo xam ne lu mel nii mi ngi leen dal di leen sonal kon man su fekkee ne jaar naa ci gis ci njariñ war naa koo jàllale keneen ku mu daal war caa mën a gis njariñ ba bu ëllëgee ñu ñoom ñëpp ñu bokk jariñu kon mi ngi noonu xale bi nee na affaire bi def na ci moom presque 14 ans nee na daawul toog ñetti fan yu mu ko daane lool loolu la fi waxoon bi muy doog a ñëw yàlla dogal ni ñetti traitement lañ ko jox yàlla def na ci ak wér te ci kàttanu yàlla képp ko xam ne traitement euh, maanaam asma dala dal moo xam ndoxu siti xam dafa yàgg cee ndax gis naa ñoo xam ne ndoxu siti dañuy dem di jëli pikiir di jëli doom muy calmé wu saa bu génnaatee seen deri ñuul kukku mais loolu manis na ko faj mu dañ benn yoon am na góor ñoo xam ne ba fii may wax ak yow mën nañoo toog semaine u yàlla duñ seeg seen i jabar yaakaar na seenu seenu bëgg ñàkk bëgg jigéen la te fekk ne xamuñ la ñoo feebar li sëñ Fallou waxoon góor moom bu bëggul jigéen xaw ma lu muy bëgg maanaam maanaam gu gis koo xam ne sax day jàpp ne maanaam ak wér-gu-yaramam la day toog semaine yu yàlla wala ñaari semaine du mën a sëy ak soxnaam benn yoon la ciy sëy jàpp ne wér fa xamul ne ndoxu siti moo koy def xel mi sax du nekk ci sëy hémorroïde bi noonu bari na ñoo xam seen biir day ballonné du yuuxu ñenn ñi seen digg yi di métti ñenn ñi duñ tàggoo méttitu bopp te hémorroïde moo koy def ñenn ñi da leen di seere bu ñuy dem duus ngelaw duñ mën a dem ñenn ñi day dem ba nga xamante bu ñu dem duus deret di génn mu def picc génn te loolu mën naa koo faj ci loo xamante ne du def sax 15 jours nga tàggoog moom dem sa yoon hmm? ñi nga xamante ne dañu am problème estomac estomac li ma ko traité fii ci ay nit kenn xamul nu mu toll bu ngeen am na siñ daara boo xam ne bi mu fiy ñëw daanaka bu toogee day géex di géex ba li muy wax doo ko xam tey bu ngeen ko fekkoon bu ngeen laajee dana leen leeral lu bari léegi kon dama da man bu njëkk sax nanguwuma woon ci di génne nit muy wax waaye dama gis ne kon il faut que ñu koy def ngir wan nit ñi résultat yi pour ñu mën a faj seen feebar yi ndax xaalis bari bi yitteeluñu waaye nit ki wér moo ñu yitteel kon maa ngi am kontaante ci seen teewaay fii di am mbégte lool di ñaan suñu borom. moom xale bi maa ngi koy yaayam léegi damay baña tudd turam ci ci micro bi mais maa ngi koy wax yaayam léegi nee naa ko du ma yem ak moom sax ci faj ko asma parce que asma bu jàppee nit ak mu def ci moom dafay ñiis gis nga xale bi dafa jeex léegi bu ko defee man dinaa ko may traitement boo xam ne xale bi incha allahu bi dana lekk bu baax di nelaw bu baax ba boo ko gisaatee dana am yaram ba nga xam ne doo ko xàmmeeti parce que asma bi moo ko ñiisaloon nii am ñoo xam ne dañu yor hémorroïde mu leen ne ngacc ñuy dem dus deret di nga leen gis yaakaar ne dañoo sida te fekk hémorroïde moo leen jàpp kon nañ faju feebar yi lépp lu dal nit ki na woote laajte man moom yàlla dogal na ci man ñi ma ñi ma xam-xam nañ ma lu ma mënta fa dama naan mënu ko faj waaye lu ma xas ne mën naa ko faj ci kàttanu yàlla bañ bindante ko dinaa ko faj ba mu wér kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom mu gën a barkeel liggéey bi fi ngeen bëgg tele bi yegg fii man fa yegg barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf